waaye yow Aida Samb nag defuloo dara defuloo dara wax dëgg neex yàlla waaye li ma la bëgg a conseiller rek mooy ketchup génnee ko ci sa yoon boo buggee gën a toog Gàmbi dal nekk à tranquille nekk à l'aise génneel ketchup ci sa yoon ketchup day ruube Aida Samba nañ la delloo gannaaw xam naa doy seetaan nag parce que sa whatsapp sax noo ko defee mooy message boo ko bàyyee 24 hours day dem te amuloo jot amuloo temps yow artiste nga da ngay tëdd di tënk di xalaat boole ko sëy bi boole ko yeneen ak yeneen amuloo temps yow man Eva mi nga xam ne sa du ma artiste sax aw ma taar sakatuma la yow kon nag Ketchup soo buggee texe biir Gàmbi génnee ko si sa yoon du yow ak Ketchup naam doomi sénégalais ngeen nag te kenn du dem bàyyi sa morom waaye nag dama lay delloo gannaaw tuuti Aida nga dellu gannaaw ci YouTube bi xool vidéo Ketchup last year bu mu duggee Gàmbi ruubee bu mu fa def ñëwuma nag di xeexal kenn ayam te sama yoon si seen i sama yoon sama ngaña si si seen i wujje ak boo leen a defante ci suuf wala boo leen a defante ci kaw waaye Ketchup lañ bugg nga génnee ko parce que day ruubee man mënumaa gis comment yi sax ketchup day ruube you know so kon ngeen bàyyi loolu xel rek left bi right la left nii la um, ketchup dafa ruube ketchup ruube na Sénégal wol ko ba mokk mu ne nag léegi dama koy yóbbu Gambie te nag ketchup ak moo ñàkk jom moom lu mu doon tey Gambie ni bokk nañ ci li ko ci def waaye nag Aida Samba li ma laay wax ne yaakaar nga di dugg a Gambie mosuloo am problème kenn mosul laa dégg ci détail kenn mosul laa dégg ci ay ñàkk a fayda yow defuloo dara yi gaaruwaale sa woy nga am sa soo nga am ku ci gis sa boppam xolal yeela yow sa soo bi ma dama ci gis suma boppa sa soo bi dama ci gis sama boppa daali ko man tey suma waa bu fekkoon ne sama waa kër jikar bu fekkoon ne ay waxkat lañ waroon na ñoo maa tegal daali ko sax parce que nag dama daali si sama biir sayukaay waaw waaye Ketchup nag boo buggee taxe biir Gambie génnee ko ci sa yëf Ketchup mënut a wax Ketchup nekkul koo xamante ne wax dëgg ne yàlla dina def lu saf nit ñi man Ketchup xaw ma sax lan a tax ngeen koy toppa di ko ko jox yow Aida nag sa plateau boo sa toog wax dëgg neex yàlla jox nga ñu cër delloo nga ñu ko waaye dama ne cër koo ko jox delloowu la ko rek ñun soo ñu joxatoon cër duñ la ko delloo waaye nag tey am naa naxar naxar boo xam ne sa événement bi fekkut ma biir Gambie waaye ni kon dinaa xam ndax Ketchup c'est gambienne wala ketchup c'est sénégalaise man tey dinaa doon xam suma réew ndax man judu réew mi laa wala nag dama nekk dogo dogo dogo réew mi loolu laa doon bëgg xam tey sa événement bi woo fekkut ma Gambie te am naa lu ma naqari loolu ne fekkut ma Gambie parce que ndu kon dinaa ñëw te Gambien ne lañ may ketchup biir Gambie dafa bari day arrêté nag te day daga day arrêté tey day dëgg ak ketchup mënut wax ñun nag am nañ ay sénateur yoo xamante ne kenn si yéen joxul leen joxuloo leen joxu leen gars yi sans man Eva mangi ni Ketchup mako ko daax wax waxuma senegalay yeb de way Ketchup mom machallah dina dinaa fëgg sama dina sama dal di wada Ketchup mako ko daax wax mako gëna presentable mako gëna mun lu muy def waye nak bala ma ñew ci fausse lari bi motax mané yow Aïda samari la lay jox bi nga duggé gambi ba tay nak defulu fa dara lu ñaaw machallah rabbi yaa ngi topp sa yoon di dox sa dox di dem sa yoon ku sentir boo paam ne Aïda mu garu gaaruwaale musulo wax kaadu sax ba jaarale ko ci lolu c'est normal waaye Ketchup kat la Ketchup soo ko dégloo snap yi mu def nga ñëw ba ker Abbas di wax naan ko xool leen eh, eh, Aïda Samba jëkkëram bi kër bu mu teg chéri chéri chéri Aïda Samba te nga fekk aw bi si biir kër bi loolu ruubekat rek a koy def Fatou Aïda Samba loo mun a muñ Fatou la gën a muñ moom la boot duguma seeni wujje nag duguma seeni débat te duma ci toog waaye nag gambi laa la wax bu ka Ketchup di ruube dama ciy wax bi tax ci dinaa ci wax a wax lu ma ci góob gar ko ci parce que nag duñ nangu mu ruube Sénégal boobu ñëw nag di bëgg a ruube Gambie parce que ruubekat la waaye nag ku yar sa mbër balaa daan kenn yow laa njëkk daan ñun Gambien yi ñun ñoo yar kecop moo tax bala moo daan kenn ñun la moo daan yéen Gambien yi jël snapkat yi jël leen jàppante loolu leen biir yaa Sénégal ñuy ñëw di ruube seen sëy yéen la ñoo njëkk a jël bileem bi teg ko seen digg loxo yi moo tax nag ñu ne nit ki soo yaree sa nit bala mu koy di dem kenn yow la koy ko wiccax mu fa ne ne ko faraas du ko say biir bët kon kecop soo amee sa nonsense am sa ay ruube nga yemale ko Aïda Samba mu ngee dox doxam Aïda Samba ñi nga war a mun a jël Sénégal bari ne ñoo xam ne di ngeen war a mun a indi te nag il a temps ngeen jox ni tamit gestu leen jox leen time jox leen jox leen seen gëdda garab bu la sutee may la ker saa su nekk ma wax ko yéen a ñu sut te yéen a ñoo mus a may ker te yéen a ñoo mus a sut 17 million population wise doo ko toolaalee ak 3 million population wise. doo leen suñ morom ci côté bu nekk su ñëwee ci métier doo leen suñ morom su ñëwee ci leneen doo leen su ñëwee ci leneen ak leneen doo leen suñ morom. waaye nag yéen soo ñu mayut chance ñun e eh, population of 3 million kan ngeen may chance day daga nag kecoog moom xaw ma keneen waaye day daga lu mu bax man Eva Sarr dinaa ko bax ba ngeer ko man tey dama am man ma naxari parce que nekkuma biir Gambie waaye ndikoon tey Aida Samba sa soirée bi ah xanaa Ketchup mi behave waaye su behave wutoon bañu ma ci naka yaram bi bañu ma ci dem police bañu ma ci état dugal ci loxoom maa takku woon loolu rek laa am lu ma réccu tey ne fekkul ma biir Gambie ñu génne ci yow Aida ñu dem parce que defaloo dara c'est normal su force la di war laa mën a invite is okay there is nothing wrong with that there is nothing wrong Ida Samba pour force lady bu Gambia ñëw invité la nga dem uyu ji ko parce que wax dëgg neex yàlla Séné Gambien nga te yaa dundal Samba mosuloo toog sa plateforme xarab new. Ida Samba télé Sénégal amna am ñoo xam ne sa li nga wax ci Gambien ni neexu leen waaye na wax parce que nag sa sëyukaay bi foofu la nekk Sénégal bari na nit 17 millions car sama cat sama xeti gémmiñ ak sama cati morom góor yi bari fa lool macha allah ñu ëpp ñu waaye nag sa taraanga it yaa ko waxal sa bopp Abass a ko yor te yàlla Abass la la booleel kon nag ni mu gën a rafetee rek ñun doomi Gambien ku ci mel ni ki Eva man mu gën ma neex ni mu gën rafetee rek mu gën maa neex nga gën a def yoon nag ci ketchup ñiy snap biir Sénégal bari nañ ñi nga xamante ne seen yoon ci ruube waaye ketchup moom ruubekat la moom ketchup ci biir vidéo bi soo ko bàyyee xel ay garuwaale rek mu naan foos la di naka ngaa lekkee xam nga yéen miy lekte mënuma fexe ba gis comments yi su ko defee sax ma mun a read comments yi nga xamante ne xëy na ñu ko bëgg a comment you know foog naa gis naa benn rek ñuy watch ketchup yaa ngi ko dégg mu la first lady yaa sew ketchup ni nga em sew yaay góor bu sew mu naan ko first lady di kiri kacco wax naa la Gambie ne amoon ñu ci dégg olof ñu bari waaye Eva man damay dégg fu sori ak fu soriwul damay dégg fu sori ak fu soriwul nga naan ko first lady waaye nag benn cin ceeb ni ñu koy lekkee ak ketchup axakay ci ceeb dañ koy lekk ak ketchup saa ceebam yow sa ceeb loo ko xamee mooy ni nga koy lekkee nga def ci saay xooñ def ci saay daxaar def ci saay saay saay saay saay ñun dañ koy lekk ak ketchup Nigérian yi boo demee seen i événement seen programme dañuy lekk ceeb benn cin bi ñu naan ko fried rice dañ koo lekk ak li nga xam mooy koslo jël këcco bi noo ko santiree noonu nga koy lekkee waaye nag Fatou Ba Barrow mooy yablu boppam Fatou Ba Barrow suñ gisee tey ñuy saaga Gambien ni si moom lañ dee jaar moo tax ñu dee am suñ fit di ñuy yab di ñuy saaga di ñuy kiri këccoo yow Fatou Ba ma ñëw si yow gannaaw bu ma jógee si Aida Samba parce que Aida defut waxut juumte nag du am te ku nekk fi nga munee foofu ngay juumee te Aida juumul sax su xamoon ne lii lii la koy jural du ko def waaye nag Aida yow war ngaa toog xool SketchUp waxoon naa ko fi may leen ne yow Ketchup gaaruwaale na la fi besoona yow Aïda Samba gaaruwaale na la fi besoona waaye li ma wax ma ne Sénégal du sénégalais du bàyyi doomam yow Aïda Samba loolu dunduloo ko te loolu du tax soo waree liggéeyee Ketchup doo liggéeyee Ketchup man loolu laa leen nawee te loolu laa leen fonkee dama ñëw seen réew li ci baax ma jël ko coppi ko li ci bon ma bàyyee leen ko man réew su ma fa demee tey réew bu ma munti dem Angleterre bi ma nekk ni li fi baax moom lay jël yokk ko li ci bon ma bàyyee ko su ma ci mënee wax sànse ma wax ci bu ma ci mënul man teg sama gémmiñ sama xeeti gémmiñ waaye na Gambie ni lu njiig njaag ñun ñooy njaag ñun ñoo tax Ketchup doom luñ daw Ketchup mooy kan Ketchup moy kan ci biir réew su ñëwee Gambie rek mel ni mooy lan waaye Ketchup yow yaa yaa jaamee moo la sori aka nga koo xam yow lii moo tax yow yow Zeynab di nga ko doon woo waxi nonsense yii nii doo fa doon dugg sax ba di ko woo waxi nonsense yii nii wax da nga koy xalaat sooy wax ak aduna Ketchup sooy wax ak aduna da ngay da ngay def état da ngay da ngay da ngay da ngay def teppa teppa yow kecob teeyuloo dara lu bokk ci yow teeyut yow sa yaram sax teeyut ci góor ci góor sa yaram sax teeyut lu daw yaram la Gambie ne nag xam naa ne ñu bari duñ génn parce que amuñ jot dangaa dégg ñu ne la suma yoon ci ñoom waaye nag man sama yoon mu ci parce que danga dugga suñ biir palais nga dugga suñ première dame def loo xamante ne lu manqué la def te may génn wax ci bi tax ci rëpp lu ma ci góobee gar ko ci lu ma ci góobee ci internet bi dinaa ko ci gar parce que nag kenn yónnee ma maa ko seetal sama bopp a teg si samay bët yow Fatou Babaro ma ñëw ci yow gannaaw bu ma wàccee si Aïda Samba Aïda defu dara na nag Aïda doxal sa dox nga dem sa dom waaye nag fi nga bëgg a dem yaa kecco ak fi la kecco bëgg a gunge boo ko toppee rek balaa wallaahi lal azim di nga ko réccu te man Eva maa la ko wax. boo koy def di ko réccu yoon bi nga jëloon ba ñëw Gàmbi kenn xarabut la kenn kenn kenn jéppiwu la doo romba ba kenn tufli la teg fa sa tànka yow Aida Samba barki démba def nga pal def nga def nga def nga def nga li nga xamante ne mooy événement fi nga xam ne mooy King Fahad Aba sa jëkkër la waaye Aba soo leen xoolee vidéo yi sa dafa am fa leen ko emloo yéen sénégalais parce que xam nga lu tax ci label nga nekk yow Aida Samba label boo xam ne saa label boobu doo dem xam nga lu tax di nga dem nag parce que yàlla may na la voix macha allah Aida boo yuuxoo mu neex boo bàkkoo mu neex yaay doomi géwél te farantewuloo woy woy da ko mun munantewuloo ko da nga ko mun macha allah waaye Aïda bu la neexoon bu doon man tey Eva Sall damaa ne sama jëkkër moo may génnee ci biti ma téye suma loxo ma dox moom ci biti ñu ñoo xool waaye Abbas dafa am fu ñu ko emloo woon parce que yaa ngi onda el lebel benn ñaar Abbas gan la moo tax ngeen emale ko foofu noonu te yaa ngi ci onda el lebel bi mooy mooy prince a dañ am seen règlement te danga koy respecté bam neex pourquoi yéen doole ñu mën a respecté sakatuma laa ñu ñàkk a classe ni ngeen a indi ci biir dëkk bi ñuy def ay manka kunka yow Ketchup soo demee ci biir kër bi ngay na ah Ket Abass macha allah jëkkëri Aida Samba jëkkëri Aida Samba ak jëkkëri Fatou. waaye déedéet nga naan jëkkër yow yaa ngee ruube Ketchup yaa ngee ruube ñii kenn déggut leen woon waaye ñëw nga dinañ leen dégg Aida Samba ak Fatou Bojang kenn déggutoon seen coow te kenn du mus a dégg seen coow Aida Samba nag respect Fatou Bojang jox ko cër jox ko gëddaam waaye yow nga ne yow yaay góori ruubekat bi waaye nag dinañu dal parce que ñun ñoo la jël teg la fil na yow Ketchup yaay kan ak loo mun mu yow mënuloo wax yow sénégalais yu wax danga ci bokkul sax yow sénégalais yi mun wax danga ci bokkul Ketchup yow sa yëpp doole la yow ni nga em ne noonu ngay deme sa yëpp doole la force ngay demee dangay yuuxu yow mbóor bi nga doon rek nga sentir ci sa sénat defuloo daraay kàmma waaye Fatou Ba Baro ma ñëw ci yow yow yaa ñu day yeplu soo gisee ñeneen ñi dañuy yab yow yaa ñu dee yablu dégg naa nag léegi ku def vidéo ci yow nga arrest leen I daf ma waroon a fekk Gambia ngeen arrest ma su fekkee ne yow yaay jox nit ñi luñ wax ba pare nga ne nit ñi duñ ko wax ba pare danga na arrest dinañ seet yow Fatou Babaro Fatou Babaro démba boo nekkutee fausse la di suñu yoon ci yow. yes am nga droit pour war a mun a invite Aida Samba saka bi nga xamante ne danga dëkkoon ak Fatou Bojang ci jaama dëkk ak Abasi jaama ngeen nekkoon dëkkandoor nit dangaa seet sa démba démba yaa ñoom yen a nekkoon dëkkandoo tey nga nekk first lady Fatou Babara sa wiiw joxu la ko de sa jàmbaar taxul nga doon first lady ñun Gambie de dafa am luñ gëm lan lañ gëm ñu ne yàlla ñun loolu lañ gëm yàlla jël la teg la fa kon tey yow war ngaa xoolaat sa boppa bu baax yow Fatou bara xoolal vidéo bu baax yow li ngaa capi-capi noonu soo si daanu woon looy wax aduna yëpp jël vidéo bi di ko di ko di ko di ko snap di ko tiktok Fatou Babara Fatou Babara mayal sa boppa jaama nga génnee sa boppa ci coow génnee nation bi ci wax bu sew ñu ngi toogoon nag téye suñ morso kaam nga ñëw kaamnes boobu génnee ko si suñ loxo yow lee ngi sol hiil it wasn't too high but hiil la soo tarxiisoon nga daanu looy wax images yang fa ñu ngee dem Fatou Ba Barrow ana protocole sami you are a lady man Eva Sarr sax keroog bu ma demee di invité di di di interview faatu dama am fu ma em man maa doon protocole suma boppa xam li maa dugg ak lu ma du dëgga sampal doomi aadama bu ma doon journaliste bu ma doon o présentateur bi ma doon dama use degree of calmness yow Fatou Babaro lan la tax mënuloo calm ñi nga bokkal school ñu bari wax nañ ko ñu ne Fatou Faraw lañ la dee ooyee loolu nag nit ñi dañ ko daan wax gëmuma ko soo demee ba nekk foos la di dangaa am maanaa danga am classe dangaa am li nga xamante ne mooy dignity dignity bi Fatou Babaro nekkuloo di demal sa boppa yaa ngi demal di whole nation nekkuloo ci ñoo xamante ne da ngeen a play akara wala di def doo xale nga nekk foofu di def ñeneen ñi naan what is wrong with the video waaw dafa juum juum Fatou Babaro dañoo nekk di ko school all the time xanaa moom si juum te rek la moo dëkka yow Fatou Babaro Aida Samba ak Fatou mi ñëw ni tey xoola Aida Samba sax naka la laa xoolee parce que dafa jaaxle sa manière xool leen video bi di body language of the video xool leen ko lii moo tax video dañ ko ragal moo tax state house dafa woon nañ loo xam ne dañ dee scrutinise vidéo yi sa seet ñan ñoo war a ak ñoo ñan ñoo war a dugg snapkat yi ban njëriñ ba war a ñëw di dugg foofu noonu pour lan Fatou Babaro Alpha mu ngi nii mosuloo koo invite te maanaam Ketchup daa moo def Ketchup li moo ko Alpha photos te mu ngi dëkk ci biir réew moomu noonu nag mu santa ba nga sant santa ba moo tax saa bu nekk da leen ma dee dégg dama ne bala ngaa laax jaay laaxal naan waaye yow olof boobu doo ko dégg ba plo jéeri olof boobu mënuloo koo dégg parce que daf la sut te man na dégguma pour pour wala ko mën a làkkamtu ci pol suma sosé nak yes dégg ko way nak ñor ñor bima ko bëggé pour waral ko you know <coughs> suma light bi moy dem down may leen ma rek ma yoxo ñëwaat na awma lu xew light bi mo nekk di dem down you know yo Fatou Babaro force leading nga Fatou Babaro do Eva man Eva sa xamna ñi ma andal xamna fi ma tek suma tanka xamna ñi ma waxal xamna ñuma dud waxal yo say bo rek nit ñi ekkati seen loxo seen diggi boppa yi seet ban distance tangaay ñëw tegal nit ñi Fatou Babaro nekkuloo fa Aïda Samba ak Fatou Bodian xool leen royukaay lañ ci wujje ci ëtt wujje te yow yaa ngee wujje ak saajo teach what you preach soo leen waree invite yow musuñ laa gis yaa Fadio Sadio Mballo wala saajo Baro ngeen toog ba tax nak jeunesse bi ñi nga xamne ñu ci seen gannaaw comme niñ ko day yow yaay mother of the nation ngeen wara mëna ci wara ko nit ñi wara mëna roy ci yow yow lo invité Aïda Samba ak Fatou pour lan da parce que loy jàng ci ñom parce que yow li nga jàng si ñoom jëfeewuloo domi si state house bu mu naxari lool jalima di barki demba bi fekk na ma fa amul luñ ka katarut pour dugg bir state house ngeen bloqué ñu say nit bloqué ñu man bokuma ci won parce que man damay gawa a damay gawa a gis suma dox leen si man duma ci dox yéen ñun kañ nañoo àgga as a nation yéen Jaliba Kuyateh mu ngi nii benn tey pléwul Sénégal soo moo tax du ma dee a naan Eva da nga antaay Sénégal na ngeen waxante dëgg lii tey bu fekkoon ne doomi Gambian moo wax ko bi dina wàcca ba zéro na ngeen waxante dëgg yàlla dëgg la bëgg te am na ñeneen ci sénégalais yi maa seetaan dinañ ne Eva li nga wax mooy dëgg TikTok bi seen tiktokers yi ñooy gën a wax seen influenceurs yi ñooy gën a wax bam neex ñun nag ku nekkaa muut waaye na Ketchup yow loo ci dawul daw ma ci takku naa ba dëgër ba mel ni sayi ma takk Ketchup benn nga gaañ ma wala ma gaañ la man li ma naxare rek mooy lu ma nekkut biir réewi tey man di kon dinaa xam yow doole bi nga jaay ci biir bu fekkee mbur nga man Eva Sandu kon dinaa ko jënda tey yow su fekkee ne amuloo stop xamuloo fay em waxuñ la suñ la ne buur suñ la suñ la waxut buur saay la ñu ne la buur xolal ay ñi maa seetaan te man wax naa leen du may saaga réew boo fa demee dangay régler nekkul sa réew da ngay régler man su ma ñëwee Sénégal damay régler dama am li may def ak lu ma def parce que damay xam ne du suma réew. nit nag comme lu ñu wax la lu soo say naan solima xaw ma ndax yow Ketchup dégg nga loolu soo say naan solima lu soo say dee wax solima xaw ma da xam nga loolu laajteel sa xariti Gambien yi ko xam. ni da ngay xam bët da ngay xam fay em ak foorut em. nga bàyyi ruube bi ci góor di tas kër di teg kër yow ruube nga fu nekk waaye yow Fatou Babaro yow yow yow mi la ñoo waxal parce que vidéo bi soo si bokkutoon ñun suñu yoon. su nekkoon diggante Ketchup Aïda Samba ak Fatou Bojang ak Abbas suma yoon waaye yow mi ngi ci bo yow mi ci nekk sa image moo tax ma cee génn di wan kon suma yoon ni laa si sitaanee rek comme yeneen Gambien di sawite di nga bàyyi sa xel bu baax a baax yàgg nañ di la school Fatou baro ñun yàgg nañ school and we are getting tired of we are getting really tired di la school all the time waaye yéen Gambien yi tamit yéen tamit kenn di yéen ku naa fexa du ñu jot ba sut ñu aji fanta jaase fii la demoon Fatou Babaro ibil ko ñu jël ko di ko cakki cakkee lii ngeen war a cakki cakkee te cakki cakkee wu leen ko ñuy laajte what is wrong Fatou Ba dafa am live xanaa waruta bégee waruta ambiance nii la war a bégee nii la war a bégee waxuñ ne du bégee nit la na bégee bam neex na bégee bam neex gaami gaambi yenn ñu ngi tëgg a soirée yow Fatou Ba Baro doo fa dem bala ñu naa am dafaa nekk problème tey UTG ñu ngi graduate xale yu jigéen yaa ngi fa nga waroon na mun a dem yow yaa waroon di ibi dictionary Gambia bi sax wala calendar bi di xool di activities that are going on in the Gambia fu jigéen ñi bokk ñu nekk ci weeri maaj bi tey Fatou Ba Baro gisuñ ben sargal bi nga sargal doomi Gambien wala jigéeni Gambien te maanaam nag ñu ngee def di takk seen ndiga ah nekk ay jàmbaar yi fàqamaan nag. nekk ay jàmbaar yoo xam ne ñii ñuy tukki ñu ngi tukki ñii dem Dubaay ya ngi dem Dubaay ñuy dem Tokyo ñu ngi dem tooki ñiy tekki ci réew mi ñu ngay tekki ci réew mi ñiy tekki ci biti ñu ngay tekki ci biti waaye doo ko def doo ko def yow tax moo tax ma ne la yow sa legacy ak sa legacy jikkar yeneen koo gën a demee rek du politique nag jëloo ma benn political partem xeexam di ko ko xeexal waaye nag lu njiig njaag yaa ñu dee teg gàcce all the time waaye mi ko yar lii la ku yar sa mbur balaa daan kenn yow lay njëkka daan du ñun ñoo ko leen jël leen rek jël gaam ya leen ko rek mu mel ni saal li moo taxoon yaay jame yu loof him oo yu xeet him ñoom xam nañ ñoom ñeena si ñoom xam nañ jaame jilanka démb rek maa ngi seetaan ki nga xamante ne mooy Coura Mbacké mu ngi koy wax yaayaa jël la jox la jësi tamit ak ndox bu ak ak ak jël ndoxam naan la ko la ko la ko emale parce que yii la dee bañ caricature yu noonu seen si yii nii yu seen xeeti sew-sew yi ñeneen si ñoom di ko def sew ngeen torop man lii mooma na naxari si ñeneen ngi si ñoom soo leen paree yéen naa ñoo naan ñu Sénégal Sénégal Sénégambia one nation this has nothing to do with people this has to do with just individual people ki nga xam ne mooy këccëg te dafaa ruube soo yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi fii si live bi di ko déglu xam nga nag seen sense of understanding yu ci bari ci yéen dafa weak ngeen a déglu message bu baax a baax di ko consume waaye li ma dee wala gis nga nit ki soo ko amee xol xol rek nga koo déglu doo ko mën a dégloo xel kon Fatou Ba Baro moom mi si bokka moo tax man ma tax a ci nii rek waaye ndi kon sama yoon te yow nag Aida Samba Fatou daf la def lingeer bi nga xam ak bi nga xamul daf la def lingeer soo bul nangu dara lu ñëw jaxase sa sëyukaay bi wax nga ko Abbas fi mu la jëlee ak fi mu la jëlee ute na torop soo bul nangu doomi réewi Gambie yi di am ci yow loo xamante ne sax dañ laa jéppi wala ñu tufli la wala ñu siixu la bu ko nangu te bu la bu la ko këccëb jaral ci këri aduna yéen a bokk seen dëkk nag yéen a bokk seeni réew sama yoon ci loolu waaye nag sa seyukaay Aida Samba yaa ma ko gën a xam doo xale de yaa ngi doon jëm mag Abbas ñëw génne la fa Aida su dee taar la daa am na ñoo xam ne daaxuloo leen su dee forme la am na ñoo xam ne daaxuloo leen mbëggeel la mu jël tag la nga doon soxnaam